naa bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da fii ci arène national ak waa rent de rent Dakar moo ñu fi woo le 25 juillet ne ko rel marle bu ko fàttee fii ci arène national ak yeneen combat fi war am diggante mobile buur siin fii la arbitre bi sifle na général moo ñu won ginnaaw jóge écurie Ndakaaru Coly moo gàtt moom ngeen jàkkaar lool ku ci nekk ci ndam nga jógee ki Pambaay la mujjee daan kii mujjee daan di fal di nuyu ñuy suivre le tv point com yëpp Sambay quatrième édition drapeau Ndiaga Niang général mu ngi def ay déplacement Coly Faye taf ko général dóor xeex xeex général général nga koy dóor suuf général Coly yaa général Zé Coly général ngi door ci suuf général a ngi door ci suuf général a ngi ci suuf laa ilaaha illallaah général a ngi door ci suuf Zé ngi door ci suuf général ngi koy door ci suuf général ngi door ay perkit Zé Zé ak Coly Faye la ilaaha amul round d'observation laa la la ñaari woyu wayu entre guillemets waaye daal ay bandi géew lañ kon nu mën a xew général bu Fass Fass Ndakaaru général ndeysaan arbitre bi sifflé na Coly Faye taf ko général dem gauche dem droite ñu xeex roofoo ngeen gis ko général a ngi dóor ci suuf mi ngi door ci biir bi moom général. laa ilaaha illallaah Zé ngi dóor ba léegi Zé jàppul Coly Faye jàppul ku ci nekk ay téere nga jàpp ku ci nekk rek ci ay téere nga jàpp général a ngi dóor ba léegi rek Coly dafa mel ni instant bi mënul pour dóor mënul a dóor moom Coly sol na ko Coly sol na ko tey général moom daal kuñ ko boole rek mu ne da xeex laa ilaha illallah roofoo liiru jaan suñu xel dem na ci yow doomu ndeyu moo njaay doomu ndeyu Afia ak Ablaye Sarr nee na ma supporteeru Mor yëpp nangu naa ko di nuyu Mansour kase bu xarañ loo borom borom borom Kolda ñaari mbëri roofoo nañu Abdou bu xarañ loo foo maam Balla Gaye tuuti yaay bu Balla Gaye Omzo bu Garga arbitre atte na waaw foog mu atte ndaysaan nii la la koy doxale nii la la koy doxale ay combat am nii la koy doxale arbitre bi la waat na dafa mel ni dafa mel ni xeex bi buñ ko defee général lay gën a arrangé de général pied gauche Coly Faye pied droite Coly nag ak lu mën a xew jàng na général eh door na ko coup dal door na ko gauche bu dal général door na ko gauche bu dal la ndeysaan ndeysaan Coly général ñamante nañ ñamante yu neex Coly Faye daa koo taf ndax bu ko mayee distance rek xeex bi mën naa meti ci moom Coly yaay taf tafal taf bee gën ci yow daw na jël tànk ba dij na ko ah, ah, ah. laay laay la laa laay la la ndax Coly daanu ko ndax Coly Faye daanu ko ndax Coly Faye daanu ko ndax Coly Faye daanu ko woote waat arbitre leen dañuy bëre waat jaadu na jaadu na jaadu na jaadu na mais nag waaw jaadu na jaadu na waa waaw sauvé na maa bi jaadu na taq na rëpp ñoom ñaar suuf ah mais man li ma ci jaaxal général loxo bi rek moo tax suuf biñ joge loxo bi rek moo tax suuf waaye ñaax daal dafa bokk ci làmb billahi wàllu teel la ku ñëw ci pind ba ngay yem général koy taf taf na ko dóor na ko dóor na ko dóor daw na tak jàpp mu génn laa ilaha illallah laa ilaha illallah taf na ko dóor mu génn saako yi laa ilaha illallah da ngeen a war a pare atum yàlla ngeen ngeen waajal combat bi wala wala atak lu ko ëpp avertissement am nga benn gaw ma ni avertissement moo koy jeexal gawma avertissement bi moo jeexal lamb ji moom moo combat bi yàgg na de yaakaaruma ko woon yàgg na metti na waaye man li ma jaaxal ba la kenn demul ardo ku ci nekk ci ñoom ñaar bëri nga ak uldu taaya ñoom ñaar ñëpp daan uldu taaya fii ci arène national wala teel la ku ñëw ca pind ba ngay yem wane ngeen ni na ngeen nag vraiment qualifié général waaye est-ce que bëriwuñ lu mat 15 minutes to door na ko moom qualifié général fayu waaye dalul xeex cooki raak eh taw na ci sa jël ko wéele laay laay la laa mi ngi dox ci kawam moom Coly Faye na ci kawam dóor na dóor gauche wala boog droite gauche la ko yéeg sànq xeex xeex xeex cooki ardo kuy dem ardo général day dem ardo wala dem arno wala arbi sif la waat na moomoo arbi sif la waat na diggante général ak Coly Faye bëre nañu sànq bëre ñu bëre bu yàgg bëre nañu bëre bu metti laa bëgg wax waa yàgg na métti na yàgg na métti na Coly Faye seen Jules Balde mon ami Jules Jules ngoog Jules Balde nee na moom a taal ah mi-temps non laa mu ci bari nañ niil mais ñii moom buñ niilee sax amateur dinañ kontaan danañ kontaan non jeexal foofu rek ñoom delloo fa sa loxo changement de pied dafa am Coly Faye dafa tegoon droite sànq léegi dafa def changement de pied teg gauche xeex bi dootul yomb dootul yomb waaw waaw dootul yomb ci général affaire ci fenn ci àdduna bi nañ ñu ci dimbali rek kon général bu géré arbitre day joxe ku nekk avertissement jox ko victoire loolu la xam fii ci arène nationale Mbaye Dieye Faye maa ngi lay ziar di nuyu Baye Demba gis nga mbaa duñ xeexaat foofu njortu naa xeex foofu de bañ jege saako yee mu ngi koy woo ci géew bi mu ngi koy woo ci géew bi moom Coly Faye mu ngi koy woo ci géew bi moom Coly Faye ñu ngi leewaatoo maama ni ñortu naa mu jeexe avertissement de général Coly Faye arbitre ndax du ko tas arbitre tas na ko lu xew day jeex wala lan day jeex yaakaar naa ko de day jeex moomoo day jeex day jeex day jeex général am na ndam général am na ndam général am na ndam waxal moom yéen bokku bokk ndey ak baay yéen a bokk baay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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk